tey ñu ngi indi proposition de loi boo xam ni méngoowul ak constitution bi ndax boo jëlee tey jii li nga xamante ni mooy proposition bi numéro 04 2024 amul sax date c'est la première fois histoire du Sénégal depuis 1960 ñu indi proposition de loi boo xamante ni amul date te loolu yaakaar naa ne injustice bi ak euh, li nga xamante ni tey waroon ko mën a wax ni kon d'accord te loolu baaxul monsieur le président boo jëlee article 31 bi nga xamante ni moom lañ wax ni dañ koo war a xoolaat article 31 mun loo ko xoolaat te xoolaatuloo li nga xamante ni mooy article 45 parce que monsieur le président article 31 dafay wax ni président as président la république ñu ngi koy war a tenir date boo xam ni le 25 février lay doon te avant 45 jours lañ ko war a def kon jàpp naa ni li nga xamante ni maanaam moom mooy li wax nii ci article 31 bi mun loo koo def te demuloo si cent 103 kon jàpp naa ni. bu fekkente ni tey dañuy dox te république bi rek ñor na di dox pour askanu ñor ñu jël tey ji ay loi yoo xamante ni dañuy tax Macky Sall rester dans la poire sur ce qu'on parce que li mu mën a jàpp mooy bu bi jàllee fii ba 200 ba 300 day maintenir pouvoir am te loolu duñ tey duñ ko accepté moo tax monsieur le président maa ngi demande sama collègue député yi ñëpp ñi nga xamante ni askanu ñor na leen démocratie ñor na leen réew ñor na leen seen intre bu taxul ñuy wax ñu arrêté li nga xamante ne mooy débat bi. te li nga xamante ne mooy république bi war a taxawaat ñu tëgg élection yi ci date bi nga xamante ne moom la constitution bi wax ndax monsieur président li nga xamante ne mooy li ñu war mooy respecter loi ak ay règlement respecter constitution bi loolu mënuloo ko def ba pare di violer li nga xam mooy constitution bi man bokk naa ci candidat yi nga xamante ni dañoo proposé woon pour bokk ci élection yi ñu rakkale ma d'accord ci loo xam teguñu ko ci yoon ñu def li nga xamante ni mooy bind président de la ko li ñu def teguñu ko ci yoon nañu ko xoolaat mais biñ koy wax booba processus électoral bi mi ngi doon dox ndax conseil constitutionnel génnee gutoon li nga xam mooy liste définitive bi mais bu xasee génn liste définitive bi bi ñu toogee ak président de la ñu wax mooy décision conseil constitutionnel kenn mënu see revenir kenn mënu si deltu ginnaaw d' accord naa léegi nag yéen xool leen nu ngeen di def man du ma bëgg may Macky Sall mu continuer di toog di yàq àllu réew mi di ministre mi di sàcc xaalisu réew mi ma koy jox maanaam muy continuer def loolu loolu accepté mu ko tey accepté mu ko la moo tax man mi bokk ci groupe parlementaire bi d'accord naa parce que bu ma d'accord du ma wote li nga xamante ne mooy li nga xam mooy enquête parlementaire bi mais d'accorduma ci propose loi pour ñu yokk mandat président de la république pour mu continuer di fi toog d'accorduma ci loolu tey d'accorduma ci ëllëg damay wote contre kon moo tax tey lii nga xamante ne moom la ñu jox président assemblée nationale ak sama collègue député yéen ñi nga xam ne réew moo la ñor seen intérêt bopp ñuuru leen te président Abdoulaye Wade ma waxoon le 23 juin nee na woon askan nga nga nekk député toog fi askan projet loi bi ñu retiré ko monsieur président en tant que mouride mënu ma nangu ñu tëgg élection bisu màggal ko bisu màggal ba suba ga ndax màggalu Serigne Touba gi la 24 août la le 24 août mënoo ko def ba le 25 août nga war a def ak ay élection loolu d'accord ma si yaakaar naa ñun ñi nga xamante dañoo nekk ay mouride il faut ñu jox ñu cër respecté ñu aussi parce que ku ne xam na ni procès bi date bi ñu ko def baaxul ni ñu ko war a defee baaxul ni ñu ko dogee baaxul kon jàpp naa tey waruñu ko jàlle bu fekkente réew rek moo man nag dama sama intérêt dafa jël parti dafa jël coalition askan wee ma ñor askan wi moo tax ma ñëw fi ndax sëriñ Mountakha si boppam ban fa demee démb nee na d'accord si lii nii démb ba fa ministre bi demee nee na ko d'accord pour ndax élection yi kon comme que d'accordul kilifa diine yi d'accordul làbbe yi d'accordul askan wi d'accordul pourquoi ñu bëgg a dàq élection yi man day sama intérêt bopp bu fekkente ni Cheikh Abdou Bara Dolly mi nga xamante dafa nekkoon candidat nekk doomu daara indi programme 155 ñàkk 100 millions francs CFA ñu éliminer ko intérêt askan wi ñoo ma gënal tey yàlla seet na ni xaalis boobu ma ñàkk ñu tëgg élection yi pour intérêt askan ko gënal kon jàpp naa ni élection yi dafa war a continuer dafa ko war a tëgg ci date bi nga xamante ni moom la constitution wax képp koo xamante ni waxtu ko da ngaa trahir peuple bi da ngaa trahir Sénégal je vous remercie président merci cher collègue le président de la commission vous avez la parole suivi du rapporteur